mooy ñooñu mu ni ma ndax boo fay dem day mel ni comme nga jóge fii dem Maroc ma ne ko pare naa ci wax <laughs> dama sonn explication <laughs> te bu fekkee ne tamit li ñu waxoon li ñu waxoon fekkee ne tam li ñu waxoon yëpp mën mën mën nañ ci dañ lay jéggal rek mën nañ ci jaaraat dinañ ñëwaat ci ci deuxième bi ah ci Cap Vert kon mën naa wàcc ba deuxième partie non non taxawal Fall euh, ah. toppukaay yi de fan yi moom xew gën nañoo xew la ñu xewoon Euh, toppkaay gën gën gën nañoo xew. la ñu xewoon la ñu xewoon. Hmm. lu tax nga wax loolu. dañoo mel ni ku démantelé. Hmm. Euh, réseau bi teg loxo euh, ki nga xamante ni moom moo doon administratrice su page maanaam mooy ki leen daan bindal. waa ka doon dugal di approuvé di bind. di bind di sos waaw di dugal ak génn di sos ak di topp ay kaa daal. biñ ko toppee ba administrateur ba bañ ko jàppee ku mag mu nekk ci rajo wala télé ci télé bu yaa jaa ko yebal wala xalaatu boppam ah, la woon xalaatu boppam je pense pas que yaayam dina ko yebal pour mu def lu ñaaw loolu parce que nag euh, koo xamante ni bàyyiwul sax ay collègues yaayam bàyyiwul ay papaam bàyyiwul kenn daal bindal yaayam wala daawul bindal yaayam mosul bindal yaayam waaw ah, enquête ba na na enquête ba gën a xóot hmm? Hmm? ngeen bëgg a yàlla euh, fin c'est-à-dire. Ah. yàq doomu aadama. les infos sont les si les infos sont sont sont avérées. waaw même moom ki koy def voilà ki koy def à quelle fin yàq doomu doomu doomu jàmbur. Euh, ci loo xamante ni xamoo ndax dëgg la wala du dëgg dégg nga ñu ni faal euh, day tox lu bon yow nga dem ni fekk nga faal muy tox lu bon te tegoo ci sa bët fekkee woo nga bind et puis bu subaa ñu xëy jàpp la léegi kan moo ci xam nga Sénégal euh, Sénégal Sénégal duñ la seedeel lu baax li nga def. micro bi duñ la seedeel lu baax li nga def. lu bon liñ la sosal la ñuy def kaa di ko waxtaane mhm. ci say say soppe ci say mbokk ci say am di jàmm ci ñi ngay liggéeyal ku ci ragalul yàlla gën caa ñeme yàlla moom mooy taxaw ni loolu dëgg la fekk yow ka ko bind xamoo ko ci ginnaaw. Euh, euh, internet bi la nekk rek bindu lu ko neex mais après yow ñi la war a weddil Sénégal dafa dafa métti ñi la war a weddil loolu ni loolu amul ñoom ñooy dëggal loolu c'est-à-dire que Sénégal dañoo mën a dëggal ab sos ñaareel bi moom mooy wallahi moom moo yàlla na yàlla lafal la cat lafal ñu ko da ngay def da ngay da ngay da ngay def vingt ans wala trente ans hmm. nga di ko def lu baax ak di ko wax lu baax uh-huh. benn bis nga juum ñu fàtte loo mas a def ci lu baax waxe sa tey tey sa lu bon mhm. te mën na am ni cata la jàpp da ngaa juum mhm. ñaareel bi moom mooy dañuy lu baax li ngay def mooy yaa ngi def social ci xale yi yaa ngi def lu baax yaa ngi def lu baax keneen na nga koy def mais da ngay gis benn faal njaga bu bind ci bind ci ci sa ci benn commentaire wax lu bon mhm. léegi dootuñu doot la nga doon def lu baax dootuñu si commentaire mais lu bon lii waa ji bind la ñuy commentaire ba say am di jàmm mujj di dëggal loolu. Mhm. cest à dañuy mujj di dëggal ay fen di dëggal ay sos ba sos ya mujj gën lu baax la nga daan def. Mhm. ñaareel ba wax nga ko na doon doomu animatrice bu mu ko doon mais luy ndey luy baayam nga jekk di xool as gor. goo xam ne bi muy xëy fekke woo ah, bi muy solu fekke woo ah, bi mu koy embauché fekke woo mm. bi muy toog ci télé fekke woo bi muy wax fekke bi mu koy jàng fekke woo nga toog rek xool ko ba mu neex rek nga ne non kii xaaral ma waxal ko lu bon mm-hmm. lu metti lay doon mais xam nga nu mu demee mooy ci sa jikko yow ci li nga am ci lu yow ci sa jikko ci li nga am ci lu ñaaw yow ci li ngay def ci lu bon ci li nga xalaat lu bon mooy amoo lu baax loo jox doomu aadama lu bon nga am loo jox doomu aadama looloo tax léegi lu bon nga koy commentaire nit ki li mu am lay joxe lu bon la am moo tax moo di ko commentaire as te yàq ko as nag ci réew mi moo gën a def moo gën a yomb defar as gor. dëgg la de. Hmm? yàq gën a gaaw defar. loolu wolof Njaay euh, wax na ko li ñu ci mën a jàpp daal mooy euh, jamono ji euh, sur Facebook mu ngi alimenter beaucoup de discussions mu di le fait que ñu démasqué ki nga xamante ni moom moo nekkoon administratrice su par benn page boo xamante ni dañu fay calomnier énormément de gens du ma tudd tudd kenn nag man di def promotion vraiment mais li ma ci mën a jàpp daal mooy Euh, muy moom du di kiñ ko jiiñ du kuñ ko jiiñ euh, lii la wolof njaay naan ngay def lu bon suba ngoon bu dégg bëccëg yaakaar ne dañ nga ciy génn day yàgg rek mais dañ lay dañ lay dañ lay teg loxo. kuy naan di di kuy naan di nëbbatu boo mandee est-ce xam nga ne saagakatu ndey yëpp. Mm-hmm. saagaawuñu seen ndey. Mm-hmm. déedéet. ndey jàmbur rek la ñuy saaga. Mm-hmm. moo tax li ñu nekk xam nañu baaxul. waxkatu yu ñaaw yëpp waxaguñ ko seen yaay waxaguñ ko seen baay waxaguñ ko seen bopp. c'est-à-dire que ay jàmbur rek lañ koy waxal. ginnaaw nag yow natt nga ko ba yaay doo ko ko wax natt nga ko ba doo ko wax sa bopp doo ko wax sa doom. Mm. luy luy luy luy bàyyam nga di ko teg as gor nga xam ne li ngay li ngay def baaxul. Mm. dëgg la de. moo taxit xam naa ni moom. Mm. waa ji naan jàmm doo ko am da koy dégg. dañ koy non xale yi moom dañu ba pare xale yi léegi euh, Mouhamed di ci doy waar mooy euh, dañuy dugal seen yaay yi ci fitna boo xamante ni doo xam kañ lay jeex. xale yi dañuy teg seen yaay gàcce goo xamante ni sa yaay day liggéey ba dee wala liggéey na ci réew mi loo xamante ni ko xool xoolaat ko nawloo ko respecté ko sa yaay yow nga xëy rek yàq ko ci ay détails yu bind ñetti phrase ak dugal foto nit ak initial turu jàmbur xam nga yooyu. Euh, euh, mm, mbaa bokkoo ci des na yeneen ci ñi plainte. man xam nga plainte naa bu yàgg. Mm. mais man dama baale nag. man dama coalition ba ndax am na kuñ fi bindalul fii. man de baal naa leen incha allah. yow yow bindaluñ la de. baal naa leen lu solo. Eh, eh, yow yaa eh, wax ju am solo moom waaw gis nga dangay yaay joo xam ne. Hmm. avant mooy am doom kenn xamalu ko dara. Hmm, hmm, mu téye boppam as ngorom. mais nit bu xasee ba am doom moom moomatul boppam. gis nga gis nga bës bi ci doom ji de am. ci lii xew nii ak ku mu doon yaayam. wallaahi du nelaw guddi googu bu dee sant ko ko. gàcce gi mu ci am parce que doo bu bàyyil ba nit ñi xam ki mu doon. te nag kaay ñu wóor ni ki ñu doon xool dootu ñu tiitre xale bi mais ndeyu. ndeyu xale bi la ñuy tiitre. te nag yaayam. Mhm. ku dem def na liggéeyam de. Mhm. na. Euh, mën naa ko. jàpp na ñaamburam jàpp na ñaamburam teg na ko fi mu ko war a teg mais amaana moom bu doom ji di sax moom du mën na am yëgu ko mën na am xamu ko mais xam nga xam nga fii ne moomatul boppam gis nga bu ñu tiitree xale bi suba kenn du xam ne xale bi la moo tax yaay ji la ñuy tiitre. fekk yoonum nekku ci. njortoon naa ko. naka jekk bi muy wax ak man xamoon naa ne si lii lay dox. alors que yow instant yooyu muy wax ak yow yaa ngi koy encouragé ci lu ne. te mm. pourtant démb rek lay sosal. Mm-hmm. dañuy naan xamoon naa ko. wóoroon na ma ne keroog gis naa ko fii te xamoo moo tax ñu ne mandu maam Cheikh Ibra wax na ko de. mandu baax na ci euh, ne euh, diw bii la. ñu bari dañoo génne seen message ak diw boobu. mais pourtant njot nañ ko nii la mel parce que gis nga li muy waxtaan ak yow ci euh, message donc loolu rek la mën a parce que kooku booy déggoo seen message vie wu jàmbur dong lay wax donc loolu euh, duñu duñ ko mën a wax ni du moom. moom nag mën naa def émission people de. <laughs> waaw loolu la waroon def nag. comme maîtriser la vie. nga man genre cas yi avant ci ay avant laay wax si ay école lañ ko doon gis ay collège ou ay lycée ay nit. def benn groupe di jëwante entre ñoom. Mm-hmm. donc loolu mën nañ ne bañ gënee nekk xale lañ ko doon def. xale collège yi sax dañ ko weesu xale léegi xale yi nekk lycée sax dañ ko bàyyi waxatuma laa léegi nga dem ba nekk mag war a am jëkkër war a am ay doom après nga nekk fii di yàq viwu jàmbur man viwu jàmbur viwu jàmbur la tu n'as pas besoin d'étaler la vie la personne

yàq na ay diggante rey na ay bakkan sax yàq na dero nit. rey na bakkan nii suusideloo na ay nit. tax na ay nit tëju euh, euh, delluwaat ci seen bopp dootuñu génn rus nañ teg seen tànk ci buntu kër yu bëri la yoo xamante ne xëy koy def du natt sax ni. Euh, yëpp yu mën na am conséquence yu mel noonu yëpp. boo xoolee kaa yooyu noonu yëpp boo xoolee luñ jot traité yëpp. ci année bi wala ci mois bi yëpp xoolal ñooñ ñooñ yëpp ñoom dañoo détruire seen ay vie parce que dañuy waxal nit ki loo xamante ne nii. fekkeewul Euh, amaana sax yenn yi dëgg la amaana yenn yi du dëgg mais nit ku nekk am nga sa sutura bopp pour man mm-hmm. euh, nit ku nekk da nga ko war a suturaal euh, comme ni yàlla bindee bëccëg ak guddi mm-hmm. viwu nit ñoom seen bos lañ njëkk yàq balaa ki ñu yàqal parce que ki ñu yàqal dañ ko dañ ko waxal gisuñu fekkeewuñu mais moom mu ngi yàqal boppam parce que da nga war a xalaat ne que dans dix ans wala dans quinze ans di nga nekk yaay wala di nga nekk une personne dans dans ce dans donc yenn yi soo koy def del sóor ëllëg mhm. ñun nag suñu génération kenn sóoratul ëllëg c'est ça notre man de xëy nañu bindal sama jabar ci groupe bi bind ci Albouri ak Biram Penn Njéeme Njaay mu ñëw di ma ko wax tiit ci wax ji ma ne ko ak lu ñu la mënti bindal man takkuma sa jaar-jaar mm. laa takk mhm. ak lu ñu la mënti bindal takku ma sa jaar jaar man sa jaar jaar man sama yoon new ci sama yoon new ah, ci man yow laa takk tey laa la gën a nopp tey laa lay gën a sëyal ah, ci gàttal ah, sëy góor ak jigéen jigéen la sëy góor day sëy jigéen day sëy <laughs> tey laa tey laa la takk tey laa la gën a mën a sëy tey lay gën a neex insha allah ah tey gis nga Sénégal mi ngi tas na réew mi yëpp dañuy waxtaan mais gis nga ñun lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp ñun ñun man ci laa bokk keneen ak keneen ci la bokk da ngay xëy ñu ni mbënd ma ndox ma fees na ñu xëy waxtaanee ko kii jooy tey suba tawatul semaine deux semaines tawatul fàtte nañu mbënd mi mm-hmm. ñu xëy ñu ni dund gi cher na mm-hmm. ceeb cher na dawlin cher na ñu xëy yokk nañu denrée bi ñu waxtaanee ko deux jours après fàtte nañu ko mais cas cent ans lañ koy waxtaanee te imaginez le groupe cas yooyu bu ñu ko defoon ay groupe yoo xam dañuy waxtaanee dund gu cher gi nan la ñuy def ba xeex dund gu cher gi nan la ñuy def ba mhm. jàppale ñi ci mën bi nan la ñuy def ba nan la ñuy def ba xoolal problème Sénégal dina fii problème du ci nguur gi de am bu fekkee am nañ sax part de responsabilité il faut le dire mais problème bi ñun tamit ñun ci lañ bokk ñun sénégalais mooy man mooy yow mooy keneen mooy keneen mooy keneen parce que ñun ñoo war a xool tey Sénégal fi mu toll ñu ne bëgg nañ ko yóbbu fële booy xool tey bëri na ay dëkk ci Afrique yoo xam ne defar seen ay dëkk dëkku Kagame bi Rwanda ngi nii exemple la mm-hmm. ñu ay futilité ki kaa lu ñu tal xool nan la ñuy innové xool nan la ñuy euh, defaree loo xamante ni dafay jëm dafay jëmale réew kanam dama déglu bërki dem euh, Paul Kagame ñu teg ko ak teg Macky Sall ñu ni ko bu fekkoon dañ leen jox euh, tey loo xamee ni dina servir seen ay dëkk wala lu ni mel lan lay doon Macky mu ni damay defar loo xamante ni dinañu servir xaw ma lan dans le temps et dans l' espace mm-hmm. Kagame tontu ni man instant bi jotu créer cent jeunes ñu ma créer cent emplois laa tal. exactement ñun foofu la ñu war a toll. mais malheureusement ñun ci kaa lañ toll. moo tax ginnaaw rek lañ jëm di. incha allah mais nag nit ñi ñooy am fulla. Mm. maanaam yow mi ñu kaa te du dëgg da am fulla dafa am benn xale bu jigéen xëy na mag la day topp di saaga nit ñi. Mm-hmm. di jaxase ay nit. day saaga Cheikh saar daf may saaga. waaw day saaga ñëpp foofu ñëpp lay saaga day saaga Mamadou mooy kii woote ci rajo kii yenn saa yi ñu ne am na lu réer mu woote daal ni Mamadou Mansour a ko for. waaw day woo day woo kooku ni ko. Mamadou Mansour moo for. saag ba jox nañ da moo ko for jox na ko Mamadou Mansour. mais moom nee na du nit. kooku bu waaxoo ñëw <laughs> kooku bu waaxoo ñëw. danaan mën Mamadou Mansour saag bi ñu la bi ñu for jox la. Eh? mu di ko def. Mm-hmm. gars yi di ko bàyyi. Mm-hmm. mu saaga ma woote saaga ma fekk may def émission mu woote saaga ma ma ni leen numéro bii xam nga mënu mënu maa fayu en direct man leen numéro bii day woote di saaga ba saaga na ma cufaay leen ko cufaay ko gars yi di ko woo boobu la ma gëj a saaga mhm. ñaw parce que da koy teg souvent nit da koy teg lu ëpp mu lay teg numéro bi laa joxe direct mhm. daal di ay wa cufaay leen xam nga Jupiter boobu la ma gëjee saaga. Jupiter te bu ma saaga waatee ma jox ko ak numéro bi. Jupiter bu see bu DTV. Mhm. bi ñuy nekk DTV avant mu fay jógee dafa am benn femme bu doon ñëw ci bunt bi bu ñëwee rek day commencé euh, seen papa lii ak lii ak lii. alal ji dama ci am lii dama ci am lii saaga ndey parati parata wax wax ci buntu télé bi de. ñu koy romb de gauche à droite. benn jour Jupiter maar ci wax ji rek dem buti yàq garabu niin di ko ko ñamalu chaque jour su ma ko woowee dama ko naan enfant mun ma boobu laa gëj a gis sàmm bi ba pare. waaw. damaa joxe numéro téléphone direct li cufaay leen ko gars yi di ko cufaay. mooy dëgg. que dina parfois nit ki bu la naree xañ àdduna yow mm-hmm. xañ ko àdduna ku la tee ndékki tee koo añ waaye damay génn télé am na lu may moytu dama am na loo xam ni du ma ko wax wala am na loo xam ni loolu moom ah, du ñëpp ci nekk non non doo añ doole. yii de desee sa doog xalaat incha allah. Mhm. yii nay ñaaw rek. <laughs> bu xasee ba ñaaw ba ñaaw. non na ñaaw. <laughs> <laughs> mais toog toog toog toog toog toog ci sa nit ki di nit ki di liggéey yow ngay yow ngay yàq. nit ki di nit ki di sàmm te wallaahi ñi nekk ci télé yi dañuy moytu ba sonn. Mhm. ndax gàdd seen image. wallaahi dañuy moytu. xoolal dafa am yoo xam ne yére yoo xam ne da nga koy bëgg a sol am te war toll nga pour sol ko mais mënoo koo sol mm. ndax sa image mais as gor goo xam ne lekk na ndékki na dañ ko koo jox jënd ko toog di yàq as as ay gor mm-hmm. toog di yàq ay boroomi tur toog di yàq ay papaaki ay yaay toog di yàq ay doomi jaamu te wallaahi li ngay yàq doo ko yàq sa biir kër nga xam ne reewande la mm-hmm. day mel ni man rek barki dem am na ku ma woo béti waaw li nga sol télé bi xam nga kilifa nga wax a wax a wax bëgg a